leen seen i règlement groupement bi fabriqué nii ku fi amati bu gën jëndi karaf tànn ngeen jënd ko fii. ah je crois que wax dëgg yàlla des fois bu ngeen amee fi ay chaise bu ngeen di ni kuy loué chaise na loué ci groupement bi te nit ñi kenn du am droit loué ñetti rek chaise ci groupement la ko loué donc mun ngeen def même règlement bi bu kenn jëndee ci boisson tànn commande leen groupement bi ñu defal leen ay jus ngeen séddale ko bu duggaat ci seen kees wax dëgg yàlla donc ñun si ñu leen di gërëm di leen sant président. encore une fois ñu lay gërëm di la sant kontaan nañu nekk nañu jéem a def ba puso bi du mujj ci ñun di réer comme yàlla def na def ngeen lii muy dox ñun en tout cas dañuy def suñu kër taayu kattan ba aussi buñ ko yokkul aussi duñ ko wàññi soo des ñu lay gërëm di leen sant lii ngeen def ñun ngeen ko defal parce que jigéen ñi suñu fekkee dañuy yokk seen koom-koom ñun ngeen ko defal ñun waa mairie parce que ñun suñu liggéey la woon ñu ñëw augmenter les revenus des femmes augmenter aussi seen sécurité parce que li bi ngeen vraiment ñun aussi ñu ngi def ko defal parce que la violence ak les femmes loi Sénégal daf ko interdire donc bu ngeen ñëwee di ko def ñun lañ leen di jàppale te ñun ngeen ko defal donc ñu ngi leen di di leen sant te xam ni quand on augmente les revenus des femmes vraiment vulnérabilité bi yéen a ngi wàññi vulnérabilité bi te aussi dépendance bi dina wàññeeku donc loolu dañ ci gërëm di leen sant. kon bu ko defee rek ñu continuer kaddu gi ñu a ah, Adama Ndiaye moom mi nga xam ne mooy superviseur bi moom moo superviser euh, unité de production bi nekk fii ci Kër Mor ñu taati ko en plus moom mooy sage-femme bi nekk ci Kër Mor Ndiaye di fi di def liggéey bu am solo di dimbali jigéen ñi di dimbali ñëpp kon ñu taat ko bu baax a baax Adama Ndiaye. kàddu sant la rek sant ndax nit ki jóg jël sa jàngal nu ñuy liggéey lii kooku doo def lu dul sant ndax xale yi tey koo ci woowoon tey sa bisaab di yàqu dina la won balaa yàqu ni ñu koy defaree soo amoon tey sa toolu mango mango ji di yàqu xale bi woo ci woo dina la won ne la mango ji di yàqu man nañ koo traduire ba def ko sirop ñu di ko di ñu ko lekk koo ci woowoon tey carotte ak nawe jéeb yi yëpp gis ngeen ko ci taabal ba ci buy ba ci lépp te bàyyiwul de aminta mii dafa jël xale yi boole ko monsieur Dieng mii mu leen di jàngal ci école bi kon képp ku lay defal loolu sa doom doo def lu dul sant ko bi ko gërëm aminte ñi ngi sant bu baax a baax a baax boobu sant yam léegi nag damay ñëw ci Saliou Mbaye ndax Pape yu Mbaye nii bi ko aminte ñëwee wax ko projet bi waroon na mënoon na ne projet bi dama koy yóbbu feneen waaye booba dafa woo Mor Kayre Mor Kayre taxaw ne ko Kër Mor Ndiaye laa koy yóbbu duñ ko yóbbu fenn fu dul Kër Mor Ndiaye kon nag loolu bu ñu yóbboon ñu sant ko ci bu baax loolu lii ku ko defal sa doom doo def lu dul sant aminte bi man li may wax lépp ci kàddu sant la sant ak ngërëm di sant waa dëkk bi ñëpp ndax góor yi dëkk bi tamit mënoon nañu seen doom bu ñëwee fii ñu ne déedéet duñ dem waaye biñ leen waxee loolu tamit dañ cee ànd ak ñu jël seen doom yi bàyyi leen. yéen warul kenn warut a jëndi kanet di ko joxe ci gàmm manque de moyen monsieur le dañoo manque de moyen manque de moyen amuñu moyen suñu amoon moyen ku ñu jàppale lañ bëgg nga jàppale xale yi ku leen jàppale ñu def loolu lañ bëgg soo demee ba ca ministre nag ñu ko waxal loolu dañoo amul moyen bëgg ku ñu jàppale ni ñu Pape Saliou Mbaye jàppale woon ba lii am fi ñu ni dañoo bëgg ngeen jàppale ñu ba mu gën a jëm ca kanam merci beaucoup. ne euh, kii nii mu ni na mii.

may rafetlu jotaay bi vraiment parce que woote ñu wuyu si la loolu kenn amul fay mais bu ànd dégloo dina am solo pour que lu mu gàtt gàtt ñu jële fi dara waxtu wi xat na te ñi war a intervenir bare nañu mais damay gàttal damay gàttal pour plusieurs raisons Raison yi jëkk mooy. orateur yi fi jiitu yépp macha allah li ñu wax dafa am solo ku fi wax rek li nga wax lu am solo la mais nag dafay am lu may beral monsieur le maire may ñaan population bi nañ ma tàccul monsieur le maire bu baax ndax lu tax ma ñaan loolu parce que man jàngalekat laa fuñ ne da war a wax rek. allah kulli àlli nga indi kay bi bare waaye sama intervention sax mënoon na ñak ndax monsieur le maire dafa dugg ci thème bi wax ci lu am solo donc may remercier monsieur le maire vous avez bien introduit vous aviez campé le débat et comme vous l'avez dit c'est un problème de stratégie qui se pose mais violence ñu ngi naan am na monsieur le maire wala ni am ñaar monsieur le maire nee lu tax fajtal amul ñun ci biir kër yi dañu tàmm nëpp nëppal looy nëpp nëppal na nëpp lay mujj te bu nëbee dootoo ko mën a faj ñu bàyyi nëpp nëppal parce que dafa fekk muy semaine bi nga xam ni ay jigéen dañ doon xeex seen àq ak seen yelleef ñu rey leen ñu ni nag nañ ci jëlee nag at mu nekk di fàttali kii mettital yi ñi mettital jigéen ñi ci biir kër yi ci mbedd yi. mooy félicité am te deuxième élément parce que projet bi def ci dougal xalé yu jigéen ñi te man mi nek inspection d'académie damay gis ni que éducation obligatoire fukki at ak juróom-benn la la nguur may pour nga dess ci école bu lolou weesoo su ko neexee bo amul moyen ñu dàq la waaye xale bu jigéen dañ koy sante mais di sante aussi population Kër Mor parce que aussi. Aminata xeyna na jox na ko mais jox na ko ñu ko yelloo jox na ko parce que li ñu fi liggéey jigéen yi ma gis machallah ku leen jàppale avec le peu de moyens bi leen Aminata jox ndax am ñoo ci réaliser dara kon ma yaakaar ni boo leen jàppale boo fi dellu see dëwa doonaa voilà donc rapidement

imam aussi wax li nga xam ni moom la ci religion wax ci xale yu jigéen ñi ak jeeg ji mais damay wax toujours ñu jël euh, kii bi euh, teg ko ci xale yu jigéen ñi parce que ñun booy xool daanaka suñu wàllu wéy la mais suñu njaboot ñu fexe ba nga xam ni ñun li ñu dal mu bañ a dal suñu njaboot moo tax man sama plaidoyer vraiment xale yu jigéen ñi lay gën a jàkkaarloo te defe naa sa doom bu jigéen kat ku la ko yeewal dimbalé na échange du 8 xalat parce que communication dafa am solo juróom ben fukk ak juróom ñi ngi xool ni violence ñi ngi am ci entre janvier ak septembre 2014 31 meurtres gis nañ ko fi ay xalé yu jigéen yu ñu 702 cas de violence faite aux femmes moy ñaata juróom-ñaar téeméer ak ñaar donc lolu

gis nañ ci li ñuy wax violence physique violence verbale maanaam saaga jigéen toroxal ko loolu bare ci yenn góor ñi ñu gis violence psychologique par exemple ñu lay menacer waaw boo deful lii dinaa la def lii mooy violence sexuelle bi mooy euh, sëy bi te ci violence boobu mooy par exemple parce que même sa soxna lew na la doom waaye même tey jii

C'est loolu dafa dépasser vraiment cadre familial. Nous éviter parce que comme nous l'avons ko c'est une réalité donc nous amul dépassé nañu foofu lu am la nous avons sama kër am sama kër sama kër parce que nous nous ay benn jigéen lañ ak yenn donc nous ni nan la def sensibiliser muy waxtaan yu mel nii ñu koy farataal di ci wax parce que ñun dañu tàmm comme ni ñu koy waxee nekk li nga xam ne rek sutural arrangement ci biir famille et cetera man xam naa ci dara parce que inspection d'académie laa nekk léeg-léeg xale dafay dañuy ëmbal benn xale waa plan parce que damay liggéey waa plan ñu woo ma ñu dem ci ba sore nga gis guddi benn ñëw ñu ñëw ni la kat soxna si kat génn ci mbir mi kat def nañ ko affaire mbokk nga xool xale boobu ñu yàqal ko njàngam yàqal ko avenir te góor bi ko def soit ma nga am jabaram di ko toppatoo am ay jabootam te defe naa ni ko monsieur le ay Mbaye waxee léegi jigéen ku nekk am nga jigéen am nga yaay am nga rakk ba nga xam ni yow waroo sax jël métti di ko teg jigéen mais danga nga war a protéger jigéen ñun góor ñi ñoom ñoo waroon protéger jigéen waruñu woon nekk ñi nga xam ne ñoo leen di teg métti bi donc mais malheureusement li ñu constaté mooy ñoom ñooy teg métti bi ñu ñu donc nañu sensibiliser bàyyi affaire bi ñu koy nëpp nëppal naan affaire u gàcce la vraiment damay bañ bu ma mun muni na xamalee daf may weer mais muni na su ma xamalul du ma mën a fajal te affaire bi dootul gàcce def nañ la lu la naqari

pour sàmm àqam les femmes. xeex violence faite aux femmes moi faire ba nga femmes, ni ñu espace pour sécurisé parce que bu sécurité amul bu jàmm amul ñun ne duñu sécurité, nekk ci àddina duñu nekk ci parce que loo jëndee c'est rek jàmm de faire partie dafa baax société mais aussi lutter contre les violences c'est contribuer à l'autonomisation des femmes

moom bu daan jëndi soow bu ñëwee yaayam daf ko naan yow daal pan fuuta bi du la jaay dara lu jar yow ndekete boobu ña muy jaay lu jar yépp bu ñu ñëwee naanaam dina laal seen cuus bu leen yi daal di lay defal sa mbuusu soow nga dem sa yaay nag yaakaar ni rek pël bee baax donc buñ ko nëbb góor lum la jox rek joxew la ko ci neen am na lu muy xaar ci yow mais bu la fekkee nag ay la yëwat nga mënal sa bopp

nit ñi xam ko ba nga xam ni ku nekk xam ne ëllëg soo tooñee jigéen wala boo defee nii yoon dina dal ci sa kaw te yoon buy dal ci sa kaw non seulement am na ay amende yu am solo mais aussi tëj kaso xaj na ci tëj kaso bi nga xam ni dem na ci benn ba fukki at. donc dama xamul ndax sama temps jeex na donc euh, rapidement loolu pour may ñeneen ñu wax ci après dinaa ci duggaat parce que am na benn pàcc bi nga xam ne ki ko waroon wax ñëwul xëy na dinaa dellu si waat pour wax euh, donc ci affaire pen yeeg yooyu maa ngi leen di remercier ci seen déglu. ah di sargal sama mbokk sama sœur moom it Yacine bi nga xam ne daanaka wax na lépp waaye nag Aminta moom dafa di ku ma bokkal lépp moom Aminta yi benn ma ci moom ndax ku ma man maa ko yor moom ak sama petite sœur yi la daan dal waaye lii ma fekkee ci développement yàgg na def loo xam ne nii day def képp la gàttal bu dem ci askan bi te suñu tudd ah di nuyu nag population Kër ndax du tey laa fi mës a teew mais chaque fois que ma teew fii tam lii lañ ma teeroo maanaam population bu am solo déglu ak dal ba nga xam ne kàddu yi ñu fay joxe kàddu yoo xam ne ñun ñëpp yoo xam ne ñu ngi lay ñox xoñatal. ci seen biir néeg ba nga xam dañ ci jege seen bopp ëlbatiku euh, gis nañu itam dañ ko wax jigéen ju am léegi juróom-ñaar fukki euh, maladie endocrinienne mooy loo xam ne ni da koy sécrété maanaam am na lu muy naqarlu am na lu muy méttatlu te génnewu ko muy rongé si biir ki xol xolam wala muy rongé si biir boppam ba génne li ñuy wax les sécrétions endocriniennes gis nañ ci forme violence yooyu itam

société bi du dem parce que li may wax naan bu jigéen faatoo dina am lu bari góor ga ca boppam dootul tal tool ba dootu ko tal waar ba dootu ko tal leneen dootu ko tal ndax mu ngi xalaat bu xëyee moom ca boppam fa jigéen daan taxaw dina fa teg tànkam ba nga xam ne di lii mais ci violence boobu itam euh, dinaa ci dem tuuti ci xale bi nga xam ne mu ngi nekk en ndax forme de violence boobu xale bi nga xam ne dafa nekk ci école nekk xale bu ndaw di jàng eggagul fenn ñu junq kuccati ko ca biir école ba dem may ko boroom kër te ay cëram matul loolu dina am leneen lu muy def ndax xale boobu kat ah, su ci ëmbee ëmb bu teel ëmb boobu am na lu muy def ndax ci biir butitu ñurukaay boo xam ne matul la butitu ñurukaay boobu ci wasin ba mën na fa mën na faj li ñuy wax rupture utérine indi xëpp deret yu bari yi nga xam ne dafay faat ji. 1er janvier ah 2011 ñu enregistré 134 patients ay xale yu ndaw yoo xam ne dañ leen sàmm euh, mu di 0,6 pour cent ci li ñu recevoir en urgence ndax dama xayma loolu bu ma ko nattoo mooy ci weer bi dina am ñaar wala ñetti cas de viol du ma wax abus sexuel bi viol lay wax mu di réalité lii may wax tënk la ci këyit laa ko jëlee dama ci liggéey.

ba fukki at ak juróom-ñaar ci ay xale yu ñu violé mu di réalité lu ñu référé ci hôpital régional bu Thiès li ci ëpp 56 maanaam téeméer euh, boo jëlee téeméer bi juróom fukk we ak juróom-benn euh, am na kenn ku leen mës a te jaar nañu benn kër docteur ñu seet leen mais nag am na si ñoo xam ne jaaruñu kër docteur li ci ëpp itam ci ñi nga xam ne jëlee nañ ci ëmb fukki at.

am nañu këyit boo xam ne këyit police la jógee waaye foog muy mujj rek bu ñu jébbalaatee rajo yi rajo ak kii juriste yi liñ ñuy wax fu sama dossier ba mujj lañ ñu ciy tontu rek mooy dossier ba tam mbokk yee mujj nañu dindi boole waaye nag xale yooyu fan la ñuy loolu jeexital bañ foog ñu wax ko ndax xale yooyu mooy ñoo xam ne bañ leen gis ñu ngi ànd ak métit parce que xamuñu. xale bu am ñaari at xamul lañ ko def xale bu am fukki at ak benn xamul lañ ko def mag moo xam sëy moo xam la mu war a sëy xam ne ay cër mooy sëy waaye xale ba xamul luy cër yi ñu ko def ba moo ba tax mu egg foofu métti la nekk monsieur le maire ñooñu ay xale yoo xam ne bu ñu ñëw ay xëpp der bi métti ba ak ànd ak transfusion la ñu métti leen xale boobu si xale bu ndaw mu xëpp yenn deret bi bu màggee fan la jëm année bi lay màggaale ak deret jooju nga xam ne xale xamul deret la preuve fukki at ak ñaar fukki at ak ñett bu ci xale gisee rey bi sax dafay perturbé wu xale bu ndaw ñu def deret ci moom mu gis ko âge boobu xalaatal xale boobu psychologiquement lan moo nekk ci moom les chocs am na si ñoo xam ne ci diggante dund ak dee la yàlla moo def sutura rek li naan yàlla moo moo biibu rek moo am na si ñoo xam ne ba ñu toogee xëy na ñëwuñu ko saasa ba ñu ko ay fan mënatuñoo saw monsieur le maire traitement la jooy nga xam ne ci mag la jëm ñàkk a sow bu ko gis ngeen na muy def traitement yooyu di traitement wu mag mu ñëw obligé ko infliger ci xale bi du ma ne amul njeexital topp ëllëg l'hépatite virale et le VIH ku am na ci waaye du ñu desal leen noo nombre de cas parce que loolu yoon may ñu di ko wax si public waaye ma wax la ne yooyu si cas de yooyu am nañ ci ay cas waaye si njeexital ba ëllëg. bu dee am na jigéen ñoo xam ne tey jii la ñu leen defoon ci xale sàkku bañ leen sàkku woon. wala ñu teel leen a may ñu teelu sëy jëkkër ji def violence comme ni ko wax sexuel si tam naam borom këram la loolu tax ñoo ñu ñooñu bëggatuñu sëy maanaam bànneexu sëy dinañu sëy ba jeexal ñu mës a xam bànneexu sëy wala mu nekk beneen sens contraire bi ñoo xam ne nii si à suite à un viol dañuy nekk ay xale yoo xam ne nii maanaam xale bi nga xam ne nii euh, àddunaam yàqu na dafay nekk bu seenee góor seen nañ ko ci filmu novelas yi nga xam ne moo am yi bu séenee góor sax dafay dafa yaram day papaam bi ko jur sax su ko nee diwkaay day yaakaar ne viol ba mu noonu lay dundaat ba nga xam ne bu ko papaam wooyee bu ko mën a wooyee xale bi day commencé di lox loolu am na la dépression bari na ay xale yoo xam ne nii ñu ngi leen di gis à un certain âge ñu sànni seen sër di daw ci mbedd mi mu di xale bu jigéen ñu naan kii dafa dof dafa réew dof dof na ba dof waaye bu ñu seetee ba ca biir viol moo la dépression koo xam ne nii dafa nekkoon xale lañ ko ko defoon mu dugg ci néegu sëy jour bañ ko jébalee borom këram kenn waxul lu xew ne faaraay nëpp nëppaloon nañu ñu jébbal ko fekk na du jànk jëkkër ji dëkkee ko ci biir kër gi di ko wax yow fekkuma la nga nekk jànk day jékki rek sànni sërëm daw xamuñu jéeg ji nekk ci mbedd ba lan moo leen leen waaye boo xoolee conséquences yi loolu ci la bokk les dérives et les travailleurs du sexe monsieur le monsieur le man du gis koo xam ne muy jaay boppam ma di ko def ndax damay xool lan moo indi muy jaay boppam boobu ndax bu doon sagoo ma nekk sa kër parce que tout simplement lañ ko def mu rus yeneen yi moo tax mu dem ëggatu bu nekk ci mbedd mi di jaay boppam waaye nag am na lu gën a metti mooy dee monsieur le maire je l'avoue xale yaa ngi dee ndax dañ leen violé yaa ngi dee jéeg yaa ngi dee ndax ñu ngi leen a métti wala dee ba ñu foog ne dee bu naturel la am na dee yoo xam ne c'est forme de violence ñoo ko firi loolu laa amoon lu ma cee wax monsieur le maire